à chaque fois ñuy delluwaat ci ginnaaw euh, coowalu suuf nekkul la première fois muy xew ci biir réewu Sénégal et puis c'est pas la première fois encore une fois muy am ay jég ay dégâts collatéraux comme ni ko Birahim di waxee mm-hmm. euh, nañu ko avec problème bi xewoon Ndengeleer mm-hmm. euh, ñu ko fàttalikuwaat encore une fois problème bi xewoon Mbourkat dans la région de Thiès mm-hmm. fàttalikuwaat justement ah, donc ñu waat encore une fois jamono ji ñuy wax problème bi xew diggante Palmarin ak Fimela des yoo xamante ne Euh, maanaam ay entreprises étrangères ñoom ñooy ñëw bëgg jaay doole nangu seen suuf jaarale ko en tout cas par le biais de l'État donc tout ça c'est des choses yoo xamante ne euh, ay litiges fonciers la yoo xamante ne il faut que ñu régler ko une bonne fois pour toutes léegi nag tey euh, je pense que coowalu Ngor moom moo jóg moo indi ay jafe-jafe moo tax tey jii ñi ñëpp di ci di ciy wax mais il faut ñu ñu ñu généraliser en quelque sorte débat bi parce que mm-hmm. dama gis ne coowalu suuf li muy indi coow ci biir réewu Sénégal bëri na te peut-être Euh, tey ngor moo moo moo aay mais ëllëg peut-être aussi mën nañu gis beneen situation moo xew dans la mesure où sànq maa ngi koy wax bu ñu gisee situation bi xew diggante Palmarin ak Fimela population bi jóg taxaw ne ñoom du ñu nangu benn yoon cette entreprise là ñëw di implanté wu ci li nga xam ne cinq mille hectares mm-hmm. donc gis nga loolu loolu c'est des yoo xamante il faut ñu régler man na euh, état bi dafa ne gendarmerie la bëgg a samp foofu euh, c'est c'est bi dañ ko ko ko war a def bi ak quel quoi moom moo war a chargé wu pour la sécurité des biens et des personnes ci bépp situation bi ñu mën a nekk ak bépp localité bi ñu mën a nekk euh, sànq bi mu ngi koy wax euh, Ngor ak Wokam euh, première fois bi nga xamante ne coow bi jóg na man dama def une corrélation diggante Ngor ak Wokam espace bi nga xam maanaam distance bi dox seen diggante bariwul Wokam am na benn gendarmerie bu fa nekk normalement bon sama xalaat bopp laay joxe normalement je pense que urgence est-ce que nekk na ñu samp gendarmerie au niveau de Ngor c'est une point d'interrogation dans la mesure bu fekkente ne état mu ngi wax équité territoriale équité territoriale bu ñu ko waxee dafay ànd ak sécurité et boo génnee dans la dans l'intérieur du pays du Sénégal da ngay gis benn gendarmerie wala benn police boo xamante ne en fait dafay assurer la sécurité de pas moins de dix régions wala euh, voilà, dix communes yoo xamante ne dafay nekk ci ci ci biir benn région entre autres je donne l'exemple de par exemple dans le centre du pays Fatick que je connais mhm. Diofior Fimela euh, Palmarin euh, euh, ba dem ba côté Joal ñëwaat dem ba côté nu vers vers Fatick ñaata gendarmerie lañu am il y a que deux gendarmeries yu fa nekk ci ci région boo xamante ne peut-être mën nañu jàpp ne am na trois départements donc ça c'est des choses yoo xamante ne man je me je pose la question de savoir est-ce que réellement mm-hmm. équité territoriale bi ñuy wax ñu ngi koy xalaat pour àndale ko mm-hmm. ak li nga xamante moom moo jëm ci wàllum sécurité donc ça c'est c'est des questions yoo xamante ne war nañ ko poser mm-hmm. maintenant nag euh, comme benn xam-xam ni ñu koy waxee pour daalalee foofu benn borom xam-xam ni ñu ko doon euh, il faut ouvrir des écoles pour fermer des des des, des prisons et là je pense que l'État ne priorise pas exactement cette situation là pour pouvoir mettre en exergue li nga xam moom mooy euh, le vœu le désir de de cette commune de Ngor mooy implanter une école à la place d'une gendarmerie euh, je pense que c'est quelque chose boo xamante ne war nañ ci taxaw c'est une bonne fois. D'accord merci Lamine euh, par rapport à ce qui s'est passé à